décision bu këru àttekaay bi di yàq rekk ni bi fi woon loolu mooy gis-gisu ki jiite njaatigeewu këru taskatu xibaar yi. tarewul lu yoon wax te yoon mayu ko ko tey mayu ko ko ëllëg mais nag lii ñaareelu yoon bi muy dal suñu ministre bi nga xam ne moom mooy moo ñu ilif inspecteur de la communication euh, ñaari yoon parce am na euh, jamono mu dagg signalu euh, télévision Walfadjri en violation de la loi mu daal di couper signal donc loolu heureusement euh, ki jiite Walfadjri moom si boppam avocat la te xam naa ne avocat bu gën a xarañ que suñu avocat de ministre parce que moom daf ko yóbbu si kaw yoon cour suprême daal di annuler la décision de coupure de la télévision Walfadjri donc loolu moo nar a amaat tey. li dal Walfadjri nag firnde la rek ci nekkin bu gàll goose bu taskatu xibaar yi nekkee fii ci Sénégal. maintenant nag problème bi mooy li nga xam ne moom la ñu pression bu nga xam ne gouvernement bi daf ko teg ci entreprise de presse yi gouvernement bi teg ko ci kaw journalistes yi ak techniciens des médias ñun ay sénégalais lañu ay citoyens lañu mais suñu liggéey. mayuñu ñu ñu am ay position politique ñun citoyen sénégalais la ñuy informé ñun liggéey bu ñuy def ngir Sénégal la du ngir euh, président de la République euh, bu jara jaaxle la parce que bés bi nga xam ne amatul une presse libre et indépendante fii ci réew mi kon boobu Sénégal nekk na en danger. jëwriñ bi di Moussa Bocar Thiam dafa sukkandiku ci article téeméer ak ñeent fukk ak ñaar bu code de la presse bi muy xamle ni jël na ndogal nangu abadan licence Walfadjri ngir mu mën a tas xibaar. ñu bari di séntu ni groupe bi dina fexe lépp lu mu mën ba jotaat ci àqam ak yelleefam.